nañ wax sama waa daayira yi ni togg ay daayira dañ togg ay añ di ko indil Casamance yi ñuy lekk dégg fii ñu toll nii dem nañu ba Casamance dafa toll ci jàmm euh, xal ya léegi doom la pour mu jógee ci guerre nag dem ci paix man je pense que le Sénégal a besoin de Sonko comme pacificateur de la paix mm-hmm. pour que dootuñu wax waxu Casamance comme entité comme nangam te moom doomi Casamance la doomi MFDC la man sax damay wax ne boo jëlee liste membre MFDC ak bu Pastef boo tegalee ñaari liste yi quatre-vingt pour cent yi dina am conformité man rek la engagé nag danga hmm. ko wax sama ji gisin la donc loolu dama bëgg ñu ñu baaxal ko ñoom nag nguur gi ñaare buñ buggee jubook yow danañ lay jaarale ci kaso man mii ak Sidi Lamine bañ ñu téye terewul dañoo génne euh, proviseur bi mm, kii bi kii yore ki yore kaso bi nu dul régisseur régisseur bi dañ koo génn këram jox ko moog waa këram ñu dem hôtel jox ñu këram ñu ñu tëdd fa ay mbinaanam bi di ñu nettoyé bu guddee ñuy oo ñu présidence ñu waxtaani te pour ñu ñi ngi ci kaso bi te yi ñi ngi waxtaan ak ñun mhm. donc xëy na ñoom la ñuy sànni lu sori mooy waxtaan ak moom ba léegi ñu solool ko le manteau du pacificateur du pays bi uniraat man sama démarche yëpp de A à Z da ci foofu rek lay visé. d' accord mais am na foo xamante ne. Euh, docteur il faut nga préciser sa pensée xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne. waaw c' est ça loolu parce que léegi yaa ngi wax boo jëlee liste MFDC nga jël ah, liste Pastef benn la noonu. il faut nga repréciser sa pensée leeral. wax dëgg yàlla wax dëgg waaye bu ma xasee ba wax loolu macha allah réew mi bëri na ay intelligence ay intellectuel ay boromi ressources. mais du ñëpp dégg cax. non non non man damaa jàppul lee Sénégal am na seize yeneen seize millions doom yu ñoo xam ne ma ca. te ñooñe ñu mën a dëggal loolu ñu ko mën a fëri fàcc même sax bu ñu ko mënee weddi ñooy di ko garaaw man loolu laa xalaat. c'est-à-dire est-ce que ay waa la ñoo nekk ci liste bi non non sénégalais yi dañ ne moom moom moom loxoom dafa nekkoon ci biir MFDC. lanti sénégalais yi dañ ne yow sa loxo dafa nekkoon ci biir MFDC. dégguloo li ma la wax man wax naa leen ne leen l'abbé Diamakhoune maa ngeeg leetaram moom mu bind ne ma je te fais conseiller du MFDC. assumé nga ko. non non dafa ndànk est-ce qu'il a exécuté. waaw déedéet ne est-ce qu'il a fait le travail de conseil xam nga bind ko lettre c'est un fait. mais le fait que mu mu conseil MFDC nga ko lañ koy laaj. dama ne man daal li ma wax man. maam am na soxna soo xam ne ñu ngi koy wax Mariama Biyaagi kooka sama maam la doomu buuru Casamance moo jur Ousmane Mariama ak Aadi Mariama ak Maas Mariama Alaaji Abdoulaye Ñas mi jur sama baay bokk ak ñoom benn baay ñun sëti Mariama Biyaagi lañ dégg nga personne n'est plus Casamance que nous ce si on veut mais dama dellu si parce que am na ñoo xam dañu ne rek boo nee Joolaa la rek kii Joolaa la mais maa ko gën a mën naa ko gën a nekk Casamance man mi ma am nekk doom doomi buuru Casamance kay. kan ngay wax Sonko. ndaw si. Hmm. du Joolaa la. Souleymane waaw bu xasee ba nekk Joolaa rek man maa ngi doom yoo xam ne ku sant maa moo jur seen yaay hmm. yow xam nga Salif Sadio. Salif Sadio waaw. waaw bi Salif ak Kombe ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. ko Kombe Sadio moo jur ki jur sama doom yi. Mhm. ah d'accord basam kattan la woon euh, euh, merci Pape. Mhm. c'est-à-dire le débat. bu ñu commencé li léegi mooy débat Sonko ak euh, vis-à-vis des incriminations yi ñu def ak yëpp. xam nga lu indi des postulats de départ dañ ko bipolariser c'est-à-dire fee yi dafa am rek ñu ko dugal ko mu par rapport ak état par rapport ak Macky Sall par rapport ak politique. mais on mënoon nañ bañ a yegsi ci lii lépp parce que une euh, une une femme. Mm-hmm. dans le monde où nous dafa am si ce qu'on appelle les les VSBG les violences sexuelles sur le genre infraction yooyu léegi mooy li nga wax abuser des femmes mooy violence sexuelle basée sur le genre. Mm-hmm. nga xam ne se genre là Nations Unies moo koy surveiller di ko di ko gérer parce que dafa am section genre. donc réew mu day ni Sénégal ak sa responsabilité bi ñu toll bu fi tuddee loolu. le le le le avantage du Sénégal avantage ku ki ñu incriminé ñëpp mooy délucider ba faire sorte que l'accusatrice la bu dee accusatrice la moom ñu confondre ko tëj ko le maximum bu dee yaa auteur on le condamne ndaxte on a des juridictions compétentes yoo xam ne mën nañ atte loolu am nañ capacité et puis les Sénégalais la bu ñu wax ne incriminé ce n'est pas possible vous savez les histoires de euh, de d'approche d'incrimination affaire viol violents yi léegi il faut léegi une police scientifique bokk ci te police scientifique bi tu as la possibilité de faire une contre-expertise xam nga wax nañ ko fi keroog kenn mënatul jël la rek nii gam-gamee la parce que kii daf ne def moo ko violé ok mais mais mais major en matière de viol xam nga li ma li li mën a leeral matérialité des faits mooy certificat médical bi. non certificat médical dans le cas d' espèce. certificat médical bi wax leer na deux conclusions lañ lañ tiré. non lu mu ci génne bi si jiitu mooy. Euh, dafa nag foofu il n'y a pas de viol point. c'est ça le contenu du certificat médical sans pour autant être le Adji Sarr non da amul problème Pape da ngay xam nga tant que tu comparais pas xam nga dégg naa gars yi ne les gendarmes ont fait enquête contre X et le procureur a fait enquête contre X. xam nga lu tax mu def X bi parce que enquête bi si gendarme yi liy génn renseignement judiciaire la génn. ndax nga xam nga la personne des femmes bi citées les gens ne prennent pas la responsabilité de conclure dans la procédure que de l'enquête effectuée il existe à l'encontre de X des indices graves et concordants de nature à motiver son incrimination mënuñu ko parce que le gars n'a pas comparé et puis il faut confondre parce qu'ils n'ont pas la preuve que lui les allégations et les dénégations portées sur sa personne sont avérées mënuñu ko parce xam ne koy comparer moom muy benn loolu mooy postulat de départ il y a pas des gendarmes qui ont fait gauche ou droite nature procédure bi moo leen permettre ñoom ñu mën a jël risque mettre ci analyse bi ci kaw infraction fi ñu la référence ak analyse bi ñoom duñ mën a bind il peut pas mettre là-bas viol à l'encontre de tel duñ ko mën. ok mais Ibrahima il a des cas de torture ah dans le cas d'espèce. extorqué sous l'effet de la torture gis nañu maître Balde mu mu expliqué ni seen i dañ leen a duma duma yu métti. pour que mu kii maître ma soxna kan avocat def na benn sortie pour ne nañ def attention mbir mi parce que enquêteurs yi mën nañu fabriquer des faits yow mi ma soxna kan boobu naka nga ko jàngatee. ma soxna kan il a fait une sortie hasardeuse. ma soxna a même incliné les gendarmes je pense il a incliné les gendarmes. Hmm. wax vous savez nit boo ko arrêté rek mu ñëw stratégie yëpp mooy incriminé la naan da nga koy man jàpp naa benn femme qui a pris cent cinquante millions ci benn vieux boo xam ne moo femme bi sax a ko rey en quelque parce que c'est un vieux connu à Dakar bu amoon ay biens mais mu nax ko ci ay affaire Afrique Sud jël ko mais bi ñu ko téyee le lendemain qu'est-ce qu'il a fait mu dem ne sama genre bi da ko doon jéem a sàkku laa ñu fekk day fekk bon vous savez on ne torture pas les gens actuellement dans ce pays dóor nit ay mbooloote xëy na. Mm. mën nga mais vous savez affaire viol au moment yi dañuy continuer expliquer ko xam nga viol simple dénégation que la personne m'a violé loolu dépassé nañ ko. gis nga cette femme là qui incrimine Sonko là si elle ne présente pas des substances biologiques ah qui incriminent ce monsieur là il ne la justice va faire l'enquête l'enquête c'est rien du tout. l'enquête pour crime comme délit c'est de simples renseignements. D'accord. Ce que ce que les font là gis nga le juge d'instruction mooy Ndeye Mbodj il va faire une commission rogatoire léegi ce que la fille a présenté moom lay comparer pose ci question la personne qui a été euh, attrait en justice attrait en justice. personne boobu ñëwee day expliquer ni mu demee juge bi li mu yor moom rek lay mën a am comme arme pour confondre la personne qui est incriminée loolu mooy wax ji c'est-à-dire. vous savez de débat en débat dañuy mujj nekk dañuy mujj dem ci tumulte boo xam ne day gën xam nga léegi li li docteur wax xam nga quand il dit que la liste de de devient une liste de MFDC. bu dee sur le plan matériel c'est transcrit que des noms du MFDC tous sont partis mais vous savez que y a problème cela veut dire quoi. ka ñoom seen parti docteur bi moom dañ koy nangu parce que parti moom dugalu ci rebelle dugalu ci kenn. dugalu ci am na sax di ma laaj ne ma laaj. voilà docteur ndax l'illégalité de ce parti rek apparaît. question la bu ma envoyé. voilà c'est ça déedéet ñoom ñëpp. maa koy wax léegi. c'est ça déedéet wax fi dafa naqadi dafa naqadee waxee. dafa grave fii ñu déggee loolu c'est clair parce que papier illégal ñu bañ la wax looloo wax wala wax ji foo xamante ne waxee wax waaye léegi kii dama ko wax ne ko damay bañ nattu dal ñu rek après émission bi ñu teg ko loxo ma ne par accusation yi dafa dafa boo ko waxee dama man loolu rek lay bañ parce que il a dit dans si beneen ñu teg la loxo accusation yi dafa diis waaye ma la euh, yow loolu boo ko waxee rek ñoo xam ne ndeysaan yow li nga xam kon bariwul man la bëgg rek déedéet dama ne maa la gën laa bëgg sama bopp dégg déglul bu baax sëriñ bi dama ne la mhm. la logique voudrait que le viol ne soit pas répétitif dans le temps et dans l'espace loolu moo wax doy na pour li ngeen wax lépp ma commenté ko mhm.